wax Mamadou Ndoye Bane bi ñu ko ko waxee keroog dafa wàcc oto bi di jooy kon su jógee ni damay dindi loolu ambulance bii mooy dindi loolu kon jigéen ñi jigéen ñi seen meer a nii xale yu góor yi seen meer a nii mag ñi seen meer a nga nii xale yi seen meer a nga nii keroog bi fii ci kat mu ni ambulance bi njëkk a ñëw kalaa koy naa loolu am nañu ko dégg kon yàlla dogal na loola am na tey moo waral teewaay ma xamal leen Ndoye Bane fépp fu mu jaaroon ni ni dinaa jaaraat na fa nit ñi ngi diiru campagne bi yàlla dogal na ñoo rek sama nopp ba may ak sama bët neewoon na delluwaat na fa ni leen mi ngi kon lii tey ci la bokk kon loolu yàlla moo ko dogal ci moom damay di dégg mu naan man mënuma politique ndax politique dañuy digg rek waaye moom mii day lépp lu mu wax la jàkkaarloog yow wala mu wolañu la dinaa ko def yàlla dogal na dina góorgóorlu dem ba def loolu kon ñu ngi koy ñaanal yàlla eggali liggéeyam ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko te lépp man ci moo xam foo mën a ne moo xam kurus nga yor moo xam loo man ngir yàlla da ngeen ñaanal jëmm ji yàlla wéral ko te ko ndax kii sunu sag la sunu ndam la lii ñu waral ñu teew fi tey man de xale laa mais ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy doog gis si bopp bi xaw na ndax yéen gis ngeen ko déet waaye man maa ngi koy gis kon ku fi def lu kenn mës a def jar ñëpp ngeen àndandoo ngeen ñaanal ko te yàlla tax ndax moom kat mën naa ni buñ ko ñaanalee yàlla dina ko nangu waaye mi ngi ñaanal ndax Serigne Cheikh moo wax ne kuy def lu mbaax yaa ngi ñaanal si bopp te moom mii kat mi ngi def lu baax mi ngi koy def ci ñeneen ñoo xamante si nii amuluñ ko jariñ kon ñun ñi nga xamante si nii ñun yaakaar nañ ko mu dimbali lu ngir yàlla war a sóol yi ñun ñëpp nañ àndandoo ñu ñaanal ko yàlla jàppale ko te bu ko yàlla jàppalee yàlla ñun ñëpp dinañu jàppale incha allah. maa ngi jégalu ba ak dafa xamal de mais ñun waa Kéré kat ñun ñëpp ñoo ngi ne def délégation ñoom Amadou Ndoye Bane nag yaakaar naa xam ne ñun waa Kéré bu ñu woowee ñun ñëpp dañu ñëw sax papa sa dégg laa ñu ngi nii ñu ñëwee côté bi dafa taxaw dafa ñëw dugg sax defu ko ñun ñëpp teew nañ bàyyi si ak mbaje gi nii kontaan nañ trop bu ñuy wax na lu ma mën a doy ba def ñun ak raadu nañ ci am seede suñ ko suñu war day kontaan bu baax a baax nag a jël kàddu parce que force ñu présenté ba nga xam ne waa raadu te ñëw su ko defee li xam ne moom lañ bëgg a wax lépp euh, am na luñ ci jiitu dëkk bi xam nga sax tolul nii waaye nag ni ko suñu papa ji waxee waaye yaakaar naa ni kër boo fa dem moom ñi fi am solo yu bari génn nañ te loolu rek am na solo ndax xool yi moom am nga ko ba pare ndax li koy firndeel waree nañ ko su ko defee kon li ñuy wax rek mooy dëkk bi moom kenn du la waxati sa dëkk la kenn du la waxati loolu ndax ku nangu wan ak ku nanguwul même loolu waratuñ koo tudd ndax ñëpp yaay seen kilifa loolu yàllaa ko def yal na la yàlla sàmm ci côté mooy bañ doon raam bañ doon ñuy ànd ñu ni duñu wax ñun ci politique naka jekk loolu la ñuy wax ba tey noonu la ñuy wax de waaw kay waaye nag dañoo wax ni politique bi ñu duñ ci wax mooy par parloo politique bu par parloo duñ ci wax jamais mais bépp politique buy jëmee réew kanam buy jëmee dëkk kanam politique boobu moom la yonent bi doon samp Madina ba mi samp état islamique kon loolu moo tax suñu nekkaay waxi duñ sañ a gàtt su ko defee lii nga xam ni moom nga ñuy indil tay jii vraiment dañ koy tàcc bu baax a baax ak suñu fukki yoxo suñu loxoy xol waaw lii yaayoon na ko sax na temps bi nga wax rek moo tax ñu bëgg a profité mais yaayoon na lépp yàlla xam na ne waroon nañoo faraanee tàccoon te tey parce que rëy na quoi rëy na trop ndax nit su amee yaakaar muy muy kilifa ci toolam wala bu mën a doon su jiwee su toogee ñetti fan li mu jëkk def mooy naa seeti ba xam mais bu saxee su ñëwee ca kër ga añ lu waay wax jàmm rek ak reetaan te loolu moo waral tey waaye su demee tool ba saxul maara day taal kon nag keroog kuy raam dina bokk mais tey dañ ni cin bu naree ñax su baxee kon yal na yàlla dëgër la ñuy wax andi bi nga xam ne jàppoon nañ ko yal nañu yàlla gën a ba lépp luñ suñu warugar ñu mën koo taxawee aussi tam lépp lu ñu suñu warugar nekkul woon sànni carte yi dong mooy suñu warugar nit ku nekk dafa war a xam li ko war mu taxaw ci soo ko mën a réclamer ay droit su ko defee loolu ñu waa dëkk bi yëpp nañ ci bàyyi xel lépp lu ñu war na ci ñun nañu ko teel a def pour pour léegi bu ñu réclamer benn droit bu ñu war am ñu xam ne lii war nañu koo mën a loolu nañ ko bàyyi xel bu baax parce que tam nekkul dem taal ab commune xëy na ñoom bu ñëwee dinañ am luñ ci wax peut être wala dinañu ko dencal bala mais de toute façon ñoo du gën a xam li ñu wax mais daal ñun ñëpp nañ jàppoo nañu lëngoo nañu boole suñu doole boole suñu xel boole suñu xalaat ànd ak maire pour yóbbu commune ba ci kaw fuñ ko mos a. ah teraanga ji nga fi indi xam ni mbar lu xam na ko tudd mbar lu xam na ko teraanga ji nag dañu mbar lu mais ci eh, am ay dëkk yoo xam ni. dañ leen a jël boote leen ci mbaar bi ñu dëkk mel ak Mbayeen Guèye Guèye Sadio Guèye ñoom parce que activité yu bari ñu ñoo koy def maanaam ak sama jigéen yooyu yaakaar ne mu nekkoon euh, euh, ngeen di euh, moo dugg ak na yàlla yërëm terrain bi ñoom ñoo a def ba moom itam mu tabax ko nekk la ñu nekk ci di ko daanu di ko daanu tey bu mu àggsee fii sëñ bi tamit yàlla indi ko fi mu def fa la xam tamit moom la faa foofu nguuram nga ñëw. bi nga ñëwee say teraanga na fi euh, naa ni moo tax ñu tànn sa liste ànd ak yow ah, wax dëgg yàlla la nga fi diggoon yëpp def nga ko la ci ëpp def nga ko ci kaas bi. parce que loolu nga bu leen tàggale ak deux cent cinquante yeeg cinq cent francs xam ne dañoo di ko cité di ko def ci yow ñu ko leeral kaas bi surprise lañ di kii euh, kii bi euh, ambulance bi parce que yaakaar nañ ambulance moom dëgg yàlla du am léegi indil ngeen teraanga nag di nga leen indi duñ la te dem xam ah, ñaar moo ko yor mooy équipe boo xam ni équipe bu bu bu bu équipe am na fi macha allah ICP nekk ak personne fi nekk yàlla jox na leen la nga xam ni bu ñu jógee fii dina am biir. moom lañ fay fekk ak matériel boo xam ne matériel bu mucc ayib la kon li ci des ñu wàmbale ñu jàpp ci rek waa teewu bàyyi am ni la nga xam ne bu dafay fekk ko fii ci matériel fekk foofu personnel moom la ñu fekk moom la ñu bàyyi ci mbar yaakaar naa mbar mi ñu ngi ci loolu comme dañu gàttal nag ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di la wax ni tamit doléance yi wax dëgg yàlla ku ay ndaw la ay conseil yi mais bi nekkee constat ay nit ñoo nekk sans ginnaaw di ñu déglu ma lay wax ni la keroog dama ne bu ma la woo téléphone la jox ma juróom-juróom ma la fukki dërëm wóor naa ma ne leen moor bii kat ngeen tegal sama kanam boppam ko bàyyi bu baax sant naa leen bis bu ma la woo du ma soli ci la woo du la woo ci jàmbati maram bis bu ma nga xam ne jàmbati ma di la ci woo mukk ci àdduna di góor a fa nga xam te mu ngi nekk sama wet di sama rak yàlla góoram ñu àndi liggéey wala moo def dara daf may wax wala moo def danay tàggoon ñoo bokk day ñoo bokk bàyyi mbaram lu jotagul woon pour am ko ñëpp ñu nekk ci ndax ah, war ngaa am féebalu nit ñi war a am ndomburu nit ñi war a am li nga xam ne mooy moo fi liggéey kon yéene moo tax nga dem Ndoye Bane bi ñëpp mag góor jigéen ndaw ñëpp a kontaan mi ngi yóbbante nuyoo ci yaw mi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi di suñu Karbalo boole woon ak ñoom ñu ngi sant di ko gërëm di sant monsieur Karbalo di ko gërëm ndax lépp moom ndax Karbalo moo ñu fekk yoon woo xam ne moo ñu tax a am li lépp. lu barab lu gëm leen seen bopp fii lu ñu bëgg am ko dañoo ñaan yàlla bu déwénee fii doon dutul doon poste santé dutul doon cas case santé poste santé lay doon loolu li ñu koy may da di tàkku am ngeen ambulance ñu nag waa réew dëkk bi ak li ko wër ñëpp ñoo ko bokk mbaayeen ka woon réew kër njaga mbay ndoom sanc ba ñëpp ñoo bokk ci ambulance ñëpp la ko ndooy baax ni ñoom ñëpp ñu ngi fi di kontaan di la jaajëfal di la ñaanal sa ndomba gi yal na jëm kanam loo ci séentu yal na ko ci jot yow lépp loo dige woon ak ñun rek li nga mën yaa ngi ci bay sa waar dama ni ndooy kontaan nañu torop du ñu noppi di ko wax yaakaar gin la taamoo woon ba tax ñu fal la loolu yaa ngi koy wane yaa ngi koy wane bu wér a wér a wér a wér ndax waxuma dara waaye li nu jëkk a kontaane bu ñu daan laaj fukk ak juróom ak ñaar fukk dëkk bi metti metti boo xam ne nga jëlal nu suñu coro dina ko fayal loolu lu kontaan la kontaan nañu trop kon loolu Ndoye Bane Sène di ko kontaan jigéen ñi ñëpp muy góor muy mag muy di sant nag Mor Xule ak góor mi nga xam ne dañoo bëgg dëkk bi di doomi dëkk bi di doomi dëkk bi bëgg dëkk bi waaye nag bu ñu melul woon nii bal tàkk ndax seen maam Alaaji Aatu Fule lépp loo xam ne moo dëkk a baax ci dëkk moom